budgets. You said cheaper than this okay. for bedrooms. Okay, so what I can do, instead of 1 million or 1.1 million, I can take an extra $50,000 off and I will give him for, I'll give him for for Alors, le prix peut, être 287 000 dollars. Two bedroom plus two living room, bedroom, bedroom, extra bedroom. So, like three, two ah. 287. Plus it's not two bedroom, it's two bedroom plus plus bedroom. I told him this. C'est comme quoi deux chambres et salon et demi chambre. Deux chambres et demi. So it's bigger. Deux chambres salon. Oui. Et petite petite chambre Ça. Oui. Descends. Descends. Descends. deux cent un million. deux cent un million. ah loolu na ko def loolu waa Sénégal maa ngi nii Dubaay yaa ngi gis ñaar bâtiment yi laa bëgg ñu defaral ma voilà ñaar bâtiment yi maa ngi nii si seen affaire plan bi ñaar bâtiment yi laa bëgg ñu defaral ma mais boo xoolee encore fii yaa gis bii wax naa ñu defaral ma ko bii bi wax naa ne defar ma ko encore mais lii la siti la nag pour après lii moom xam naa bu ma yee pare laay yi pour ñu defar ma yii yëpp ah, pour ñu defar ma yii yëpp wax dëgg yàlla parce que pare naa ko ay merci suñu bâtiment ndax wax yàlla xam na ñëpp xam na ni euh, defar bâtiment dafa nekk lu lu baax loo xam ni day doxal réew moo tax pare naa pour investir fii yëpp pour xaalis bi yëpp te lii lépp gis nga ko macha allah lii lépp wanal ma ko alhamdulilah bu mu paree après ma maa ngi dem si ñaar yële encore. lii yëpp lii yëpp aussi yëpp que wax naa moom ba instant d'accord d'accord pour defal ko d'accord wax la wa taala wa yi ñu ngi leen ziar di leen mbok yi nga xam yeen People tey nag ñëwaat nañ ak ki nga xamni modi jeune milliardaire Mara bi Serigne Ablaye Faye ki nga xamni mo ngi ci bâtiment yi mo ngi ci terrain yi mu ngi ci sociale yi mu ngi ci lépp loo xamante ni ci lépp luy jëmale euh, am réew kanam la ñoo ngi fii ci Dubaay ba tey di leen ko toppal tey nag dañoo dugg foo xamante ni macha allah gis nañ moom ci bâtiment yi mu ci meuble yi mu ci lépp loo xamante ni rek dafay jëmale réew kanam sëñ Ablaye Faye ñoo ngi leen nuyu di la ziar. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di nuyu kilifi diine kilifi adi di nuyu Serigne Mountakha mbake mi nga xam mo fi teewal mu yalla nako yalla yagal ko te wéral ko di nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam mo suñu kilifa mo suñu Serigne di nuyu suñu laay seen xaarit ba si mbokk chrétien di leen nuyu di leen ziar di leen balu ak comme ni nga waxé di leen sante si déplacement bi nga xam ni déplacé nga ñew topp ma fi ba dubai Serigne Ablaye tay dañu gis. nga dugg ci lu yéeme yéeme man sama bët ma may maa la topp tey ñu gis yaa ngi ci bâtiment yi yaa ngi ci lépp loo xamante ni que dafay euh, yëkkati dëkk ci kanam sëñ Ablaye lan moo tax nga ñëw ba Dubaay dugg si wàllum bâtiment yi wàllum terrain yi. waaw boo ma ko laajee dinaa si sawar tontu parce que xam nga yàlla bu ma teralee mu jox ma ay milliards milliards yooyu bu ma sañoon wax dëgg yàlla duma ko dugal feneen. fuma ko mën duggal moy ci eh, si investir si ñew ba dubai investir jël ay milliards milliards milliards duko investir di jënd ay kër di jënd ay bâtiment ñu defal ma ay plan pour ni tabaxal ma ko ma xool asetek bu baax bu ko mën mu ngoy tafal lolu dafa bok ci encore si sa wàll la sama liggéey bi nga xam dama def social ñepp xam na ni def lu baax lolu mo yag na ko def hmm. te xam nga ni ma ngi def social comme ni ko waxe ma ngi jël ay milliards ma ngi jël ay millions di def si dom aadama yi comme ñu ma koy le doomu adam yi nga xam damay ñaan ba nek mënti milliardaire bu ma ko waral tay sama milliard bari parce que nañ di wala lama liggé sama liggé bi nga xam dama def social ñepp xam na ni def lu baax loolu mo yag na ko def te xam nga ni ma ngi def social comme ni ko waxé ma ngi jël ay milliards maa ngi jël ay millions di ko def si doomu aadama yi comme ni ma koy ñaanle doomu aadama yi nga xam ne damay ñaar ba nekk mënti milliardaire bu ma ko fayee wax dëgg yàlla loolu moo waral tey sama milliard bari parce que nañ waxante dëgg ay junni junni doomu aadama nga koy ñaar ñi am ay résultat néewu na man nit ki ma jëflante moom mu bañ a sotti mm-hmm. wax ma da am mais néew na parce que yàlla mooy maye am na ñoo xam ne su fekk cent pour cent yi quatre-vingt-quinze pour cent yi mu ngi nangu yeneen cinq pour cent yi maa ngi si ba keroog muy sotti parce que am na ñoo xam ne seen mbir dafa dëgër pour nga ñaan leen mu gaaw du yomb mais dangay xool ban méthode ngay mënoon jaar bay affaire ngay def ba keroog muy sotti mais ni nga xamne jot na la ñaanal ba nek minti milliardaire ñom ñoo jël alal bobu dima ko fay may jël alal bobu diko def ci askan ci new doole yi ma jël alal bobu encore diko def investir pour mu gëna jur alal pour alal bobu ma gën ko delluwaat si néew doole yi ba biñ ko ci ni nga xamne seen loxo jutu gennaw parce que man buma sañon lepp lo loo ma ngi koy def lu baax day gëna yok wo mm-hmm. gis nga nit jamon yi yaa ngi gis ñi nga xamni ñoo nek ci dubai ñi nga xam ne seen loxo jotu ginnaaw ak seen seen loxo jotu ginnaaw yi mooy vidéo yi passé gis nga ni ma ci jël di di joxe ñi nga xam ne dañoo néew doole. encore comme ni ma waxee xam nga ñëpp ñëpp dañoo war a comprendre gis nga ni Sénégalais yi sëriñ Afrique dañoo war a si benn côté li ñuy ñaanloo mooy lépp loo xam ne. sa sa moroom jullit bu ñëwee di la wax soxlaam bu bu yam si encaisse ko rek fexeel li nga koy ñaanal boo ko ñaanee wér-gi-yaram nga ñaanal ko gudd fan nga ñaanal ko lépp loo xam ne lu koy aar la nga ñaanal ko lépp loo xam ne lu koy lii la boole si lu koy defal mu am alal mhm. parce que tey kooku sëriñ yi bu demee bañ ñoom it ñaan ñi nit ñi ñiy gis ñi defal ñi nekk ay milliardaire day tax ñoom it bokk si bokk si ñiy yokk réew mi kanam parce que comme mel ni defal mu am alal mhm. tey kooku mais sëriñ yi bu demee bañ ñoom it ñaan ñi nit ñiy gis ñi leen defal ni nekk ay milliardaire day tax ñoom ni bokk si société bi bokk si ñiy yokk réew mi kanam parce que comme mel ni man bu ma tabaxee mhm. tabax ay bâtiment tabax ay bâtiment loolu day taaral réew mhm. bokk na si lu rafetal réew mhm. mais fekkee maarob yi si boppam fekk ñoom ñoom dañuy eh, def loo xam ne pour seen bu ñëwee du ñu du ñu def lu war su ñoom wala du ñu jël xam-xam bi war su ñoom di ko def loolu day boleke eh, loolu parce que day taxa ba ma ñu ñu bëri dañuy yaakaar ni maaraay bu yépp ñoo yem fekk demoo noonu am na ñu maara bi nekk si internet bi ñoo xam ne am nañ xam-xam am na ñoo xam ne dañuy tàppale tàppalekat yi nag wax dëgg bu ma sañoon loolu da leen effacer bu ma sañoon ñi nga xam ne ñooy liggéey si télé yi liggéey si youtube yi liggéey si il ne bañ a jël ñi nga xam dañuy tàppale parce que dañuy yàq dañuy yàq yàq lu bari parce que man gëm naa ni yàlla daf na man maay bu benn maarabu boo xam ne may jël sama alal di def sa askan bi xaaruma di jël askan bi jël seen alal di ko def sama bopp may jël sama alal di ko def sa askan bi ñépp seen seen nañ ko dañu xoolaat yeneen vidéo yi ku ma gisul xoolaata yeneen vidéo yi tappar maarabu Ablaye Faye di nga ma gis fi ma jëlee 10 millions di ko yóbbu sa hôpital yi fi ma jëlee 20 millions yi di ko jàppale doomu aadama yi fi ma jëlee ay 200 millions 30 millions 40 millions ba si koor gi nga xam ni euh, dama koy def ay social di dimbali doomu aadama yi te xam ne foofu lañ jëm koor mu ngi ñëw te incha allah rabbi dinaa ko defee Sénégal kon li may digal si si sama mbokk maarab yi il faut ngeen wuti xam bu doy. il faut ngeen xam li ngeen di di jëflante ak doomu aadama yi il faut parce que tey boo ñaanee nit ki ba mu nekk multi milliardaire dalay boole am ni ma bëggee sama njaboot nu ma fonk sama askan noo la fonkee askan jaamur noo la fonkee ñëw doole ñëw doole sa laa gën a fonk ak ñi nga xam ni ma dëgg yàlla parce que comme ni ma ko waxee yërmande ma dëgg yàlla dafa na ma yërmande boo xam ne ñëpp laa yëram kon sama client yi laay waxati di si waxaat ñi nga xam ne jot naa def multi milliardaire de leen def social te am na ñoo xam ne ñu ngi def social ñi nga xam ne ñëwagunu encore bu ñuy ñëwee ba ma defal lañ ngeen gis ba nga defal nga nekk multimilliardaire fexe lañ ngeen def social man képp koo xam ne yaa ngi def social yaay sama mbokk parce que nañu waxante dëgg jamono toll nii àdduna bi yëpp a metti kon bu ñu sañoon dañuy defal doomu aadama yëpp nekk multimilliardaire ba nit mënoo déplacer seen réew di dem si yeneen réew di fa ñaanal ay naar di fa ñaanal ay ñeneen ba ñoom di jël alal di ma def bay ba may investir seen réew di bugg defaat yeneen investir yeneen te sama te investir bi du yam si du baay rek dina dem ba États-Unis dina dem ba France dina dem fépp foo xam ne Sénégal ñu ngi fa dajale rek dinaa fa investir. partout dans le monde. adduna bi yëpp. pour alal boobu di ñëw ma koy defaat ci sama réew. ndax sama réew laaj na ko kon xam-xam bi nga xam ne dama koy defal doomu aadama yi ni nekk multimilliardaire dama koy gën a yokk pour ñëpp mën see jot pour adduna bi yëpp mën see jot mooy jigéen boo doon ñaanal lu tolloo lu tolloo deux cent person trois cent personnes ah waa man ay junni junni personnes ñoo xam ne yooyu rek ku nekk bu la fayoon cent millions wala deux cent millions da nekk ay mili da nga nekk milliardaire wax ba nag ñii di jël ay deux milliards ñii jël trois milliards ñii jël ëpp loolu di la ko jox kon fexe leen nga ñu am xam bu lew bo xamne ne àdduna bi ñep mu ngi si julli mu ngi si juma julli juma mu ngi si tabax juma mu ngi si tabax keur mu ngi si def lu baax pour lool parce que dafa lool dafa baax kon doom adama yi bu len wax sëriñ bi naxna ma naxna ma lek duma duma ñaanlu da ngay do ba kéro ngay dajé ki lay ñaanal parce que aduna lambatu la rek ba kéro ngay dajé ki lay ñep yamun ku nekk ak li la yalla jagalé sa xam-xam man ak yalla luma ma mo dama lay aar ba paré defal nga am alal nga am teranga te kenn du mën si yow dara si kattun yàlla loolu laay amoon lu may leeral loola amoon lu may li xam ne man lu dëgër laa nekk te gis nga ni ay kilifa milliardaires yoo xam ne ñu ngi si Dubaay. maa ngi jëflante ak ñoom waaw maa ngi jëflante ak ñoom te ñu ngi ñu ngi liggéey man ak ñoom te incha allah bi affaire bi dina gën a yaatu loolu laa amoon lu may wax wasalaam.